am déclaration bu ma bëgg def à partir de fii Rufisque balaa ñuy jublu ci leneen ma bëgg ngeen may ma dal ak déglu ma def déclaration boobu ngeen ma ko may. xam ngeen euh, jamono ji ñuy wax am na lenn ci suñuy frère ak suñuy sœur patriote lu ñu agressé fële ca Saint-Louis gaañ leen gaañu métti ba ñu ca hôpital fi mu toll nii. nee ma rek ngeen dal te bàyyi wax ji parce que li am solo may ngeen ma ko. bi campagne bi ba léegi Pastef pour un parti qui est au a été en parti plus que responsable. agression def premier jour campagne bi agressé nañ à Dakar Nous tout tous agressé à Kungel, ba nous loxo kenn ci leader de Malik gabou Taï nous attaquons attaqué à ak ay paaka ay jaasi ay grenade lacrymogène ba gaañ fa ay xale lii nag responsabilité état bi la parce que réew mi dafa changé man maay premier ministre du Sénégal man am naa sañ-sañu en tant que premier ministre je suis ay ndigal ministre de l'intérieur jox ministre de la justice parce que le ministre de la justice c'est une autorité politique ce n'est pas une autorité judiciaire Pour kenn y est le ministre de la justice la femme indépendance nous avons def loolu man su ministre de la justice poursuivre le amul amour sañ bañ a procureur général kooku woo procureur pour ñu poursuivre ci loolu mooy dëgg bi ministre l'intérieur sama gouvernement la nekk man ñoom ñëpp maa leen consulter proposé ko président de la république mu valider loolu mooy gouvernement du Sénégal kon dégg leen ma bu baax li may wax liy wane ni réew mi am na soppi mooy man bi campagne commencé venez. Vous woo ministre de l'Intérieur, en tant que premier ministre woo mon ministre de la justice en tant que premier ministre waaye en tant que candidat woo naa début campagne bi laa au ministre de l'Intérieur. intérieur ne ko Diaz jënd na ay gànnaay déglu leen ma rek non non non déglu leen ma s'il vous plaît déglu leen ma li ma wax dafa am solo il faut que vous vous yenn Si Si animé rek day yàq li may wax animé début campagne de laa ministère ministère de l'intérieur ko information yu wér dégg Barthélémy Dias jënd na ay ngànnaay jënd des ay à pompe jënd ay jaas yi le wu di attaquer ay man c'est le candidat tête de liste Ousmane Sonko moo Je le sais, say pour lolo nous réglons rapidement. agression bi njëkk premier jour campagne nous woowaat en tant que candidat Nous ko li ma koy wax ministre de la justice en tant que candidat wax leen li ma leen di wax ñu toog seetaan dem ñetti agression zéro arrestation non, c'est la faillite de l'État et c'est le candidat qui parle dama nous ñu nous ne nous, dañuy gérer état nous devons gérer l'État. en tant que candidat l'État a failli à garantir la sécurité de des du parti passifs qui se trouve être le plus grand parti du Sénégal et qui peut régler lui-même ses problèmes allons du yoon ba tey pour les parce que ñoom nee nañu romb nañu ab convoi mu ab ñu yóbbu Sonko Sonko Assane Diouf wàcc ne ku fi wax Sonko ñu def la dangam ñu génne seen i jaas yi yéen di ngeen gis image su ngeen demee ci réseaux sociaux yi loolu garaaw la ci réew mi. woo naa nag ministre de l'intérieur nee naa ko depuis 15 ans dans ce pays benn waaye fi nekk ñu tuddee ko Barthélémy Dias mu xamadee xamadi ba fu xamadi yem. yaruñu ko waaye baayam bu dee baayam moo xamadi moom mënul bañ a xamadi ngeen ma dégg bu baax baayam yàgg ngeen dégg baayam di wax lu bon ci man ma noppi ne jaru ko waaye bu matoon li mu doon man ma mat ko doom du taxaw ci télé yi di wax lu bon ci man ak lu ñaaw waaye depuis 15 ans toutes les sources de violence benn waaye fi nekk di jaay ni moom EBM booy Dakar la di la ay nervi foog ni loolu mën na wëy moo tax ni bis tey loolu jeex na Sénégal bis tey loolu jeex na Sénégal li na si campagne bi man dama ne woon à partir de jeudi damay dem defi mbir na Yoro Fula def Vélingara terminé en beauté à Bignona waaye fii la ñuy toll ñoom ñoom dootuñu campagne ci réew mi. dootuñu campagne ci réew mi te dootuñu nangu benn militant Pastef benn militant Pastef ñu koy jàmpaaka.

te ñoom li ñuy bëgg a prouvé ñu bëgg a def mooy gëm nañ ni ñoom ñàkk nañu ba noppi xam nañ ko léegi dañ jàpp ni suñ ñu poussé ba ñun ñu réagir sénégalais yi dañ naan ñoom ñoo def violence bi wan ñu gannaaw waaye sénégalais yi mën nañu ràññee de ñun def nañu dix ans d'opposition bañee ne ci opposition dañ ne ñun duñu mës a affecté kenn waaye droit de la droit à la résistance la ñu mos a wax du ñu attaqué kenn waaye dañu toog di seetaan kuy dal suñu kaw yéen ñëpp nag maa ngi leen di jox rendez-vous demain à Dakar. Baobab la ñu demee def suñu caravane Baobab. ko duma dinañ ko duma sur le terrain dimanche ñu duma leen ci heure bi mais lii dootul am Sénégal daf fi nekkoon ak ay moroomu baayam naan sama maam sama maam wadd di jaay waaye dafa waa génération ñu ëpp ko nit ëpp ko doole ëpp ko fit ñu jaar jaaru fa kon nag bukki bu yabee waxamaana loolu jeex na fi le ministre de l'Intérieur, dans les 24 heures, s'il n'arrête pas ceux qui ont fait ces forfaitures, il faut qu'on règle ou ne nous voulons qu'on règle tout le Et j'assume entièrement, parce que nous avons droit à la résistance nous, dans la Kawaïtaï. tere à sénégalais voteel ñu parce que xam nañ fu nous bi nekk kon waa Rufisque ngi waaye nit sa njaboot rek la am. xam te njaboot gii toog nañu cinq dernières années njaboot gi suuf yi nañ torop torop torop ñu nag ba tey ñu nguur. ñu naan njaboot gi dañuy continuer di len agressé man may le responsable moral de ce parti ma toog di ko seetaan loolu jeex na tay kon la ca des nag defe naa candidat yi jël parole wax nañ ko ba mu leer nañ élection bi yéen ñëpp xam ngeen enjeu bi moy en finir définitivement avec ces politiciens alimentaires nga xam ne sàcc alalu réew mi randal jaay des intérêts stratégiques du pays des étrangers clientélisme loolu rek dañ fi nekkee gis ngeen Barthélémy Dias man maa ko joxoon gannaaw yàlla mairie Dakar yéen xam ngeen ko Barthélémy Dias mënul gagné benn quartier de Dakar man maa ko joxoon mairie Dakar waaye décevoir na ma ndax li mu nekkee mairie Dakar bàyyi leen man bi ñu toogee dama ne président Diomaye yow xam nga ni li ñuy def ci mairie bourse bourse fictive yi ñuy def naan lii ay étudiants la fekk duñu ay étudiants ñu damm ko seen poste surfacturation marché yi man leen rek laa demandé nañu auditer les mairies nañ ko commencé mairie Ziguinchor bi nga xam ne man maa nekkoon maire bi bu boobaa kenn du ne dañoo def chasse à la sorcière waaye li ne mairie Dakar nañ ko yulli ba mu génn dinañ ko yulli ba mu génn parce que xam nañ li fa xew et j'interpelle une fois de plus l'état du Sénégal un état ne doit pas être faible yàgg naa di interpeller monsieur le président de la république yu bëri yu bëree bëree bëri suñ ko defoon non. tey du ñu nekk fii ñu nekk nii un état ne doit pas être faible tey lii xew Sénégal la ñuy wax ci média yi kenn ñeme ko woon def ci Senghor kenn ñeme ko woon def ci Wade kenn demee ko woon def ci Diouf kenn demee ko woon def ci Macky Sall tey rek gis ngeen benn vidéo benn waay bu taxaw ne régime bi il veut empoisonner toute l'opposition xam naa leen loolu moom nañ ko ci yeneen jamono c'est parce que dañ leen laissé ñu def loo wax ñu ne non on doit montrer qu'on est différent un pays nag on le gouverne dans la discipline dans le droit et dans la discipline mais ku ne xëy saaga Ousmane Sonko su mu ngoon jëpp dara doo ci fekk loolu dina jeex ci réew bu ko état réglé wu ñu réglé ko suñu bopp te mën nañ ko kon sortez massivement voter le dimanche prochain. wax gi du bëri de kii duma fi def discours ci programme wala ci pôle noonu dañ def gannaaw ëllëg li ma mooy li des ci campagne bi kii refus bi nañ ko largement et. ñu amaat nag gën koo yaatal te ñenn ñoo xam ne sax ñi ngi woon ci ñoom ku mel ni le maire Omar Cissé dem nañu ba gis ñi ñuy new ñi ci dëkk ñu ñëw la dañuy ñëw yokku doole eh, ànd ñu eh, liggéey eh, liggéey kon man gëm naa ni su doon 60 pour cent la ñu amoon Rufisque gëm naa ni bii pas 85 pour cent di ngeen ko voté pour la liste de Pastef loolu man man li ma gëm kon gars jox naa leen rendez-vous à partir de demain waa Rufisque waa Kër Massar waa Guédiawaye waa Pikine boo fekk waa Dakar juróomi fan yi des ci campagne bi dinañ xam ni Dakar am na borom Sénégal am na borom te Pastef mooy borom Dakar moo borom